gars dugu déglu leen président Macky Sall ah. jar na ko jaru ko jar na ko boo leen bëggee tontu ñi nga xamné wax rek moy seen métier xanaa ñu xol rek si ñun ñan ño xamné dañ leen di féetale liggéey bobu parce que dam fo nga wax bo waxul nit ki wax ay katch day dem ba japp né mom mo am deug alors que limuy wax dara du ci deug dara donc fokk mu am quand même ñu tontu tuuti di dindi tuuma di tek li deug loolu moom a intéressé woon euh, tuuti gars yi ngeen baal ma président Macky Sall comme ni mu wax wax ji jar na ko jaru ko mais am na ñoo xam ne il faut ñu leen tontu duulkat yi les duulkat les Sonko maan laa ñun ñoo leen tontu les patriotes yi nga xam ne duulkat yi ñoo leen tontu président Macky Sall wax na ko il faut moom ñuy tontu kon ñun ñi di tontu tey di tontu patriotes yi duulkat yi ministre yi nañ ñu jox cër ministre nañ ñu faale nañ ñu nemmeeku.

jërëjëf Khadim Cissé gaynde Macky Sall président Macky Sall kontaan nañ lenn rek moo des mooy autorités yi euh, ministres yi DG ñu wàcc sur le terrain ñoom ñu jàppale la te bàyyi di jël xaalis di ko jox ñoo xam ne ñoom liggéeyaluñ la jël xaalis di ko may ay ñu ndaw ñoo xam ne nii defuñu dara jël xaalis di ko jox nit yoo xam ni gëmuñu la jàppalewuñ la nañ ko arrêté te yàlla tax autorités yi ministres yeeg DG yi ñëpp a yem ñi ñu war a jox xaalis duñ leen woo ñun ñii ñu jox leen ko. ñu war a jàppale si matériel lu ñu leen woo ñu jàppale leen mais dañuy jël xaalis may ko ñoo xam ne ànduñoo ak yow te suba boo ñu laajee ay preuve président Macky Sall ñu àndal la preuve ñu andi la ay preuve yoo xam ne ay nit yoo xam ne may nañ ay xaalis ay nit te ànduñoo ak yow.